c'est-à-dire man dama gis euh, lu ma commencé jaaxal ci Sénégal te Penda wax na ko maanaam une certaine propension à la confrontation lépp rek confrontation lañ ci jublu un problème une crise artificielle a failli déboucher sur une crise infernale maanaam loo xam ne lii soo ko xoolee ba ci biir originellement c'est un problème administratif mm-hmm. parce que campon le décor on a un pays on a un État, on a une République. On a des institutions. D'ailleurs, la République, c'est un magma d'institutions. Moi, moi, République, un groupe d'institutions. Il y a le règlement intérieur. su nekkee ni les parents d'élèves des filles voilées xalaat nañ ne y a un télescopage un choc entre le règlement intérieur et les lois de la République mais aller devant les juridictions on n'a pas besoin d'ameuter la presse on n'a pas besoin de faire de la clameur encore moins du vacarme mhm. il mmh. a des juridictions qui sont compétentes nga dem laaj leen entre le règlement intérieur et les lois de la République est-ce qu'il y a télescopage s'il y a télescopage ñooñu danañ arbitrer mais est-ce que du moment bi ñu ko defee ak rentrée des classes bi peut-être ak bu ñu jëlee yoon ak xëy na yàggaay bi xëy na looloo tax. ñu jaar yoon bi mais il fallait au moins esquisser le geste pour wane ne yow tu es euh, tu es tu es respectueux Parce que pour, pour moi encore, au commencement, c'est administratif. Maintenant, à l'arrivée, c'est devenu autre chose. Mais au commencement, c'était administratif. Mmh. Bon, un mot aussi sur le règlement intérieur. Parce que le règlement intérieur n'a pas valeur de loi ordinaire, encore moins de loi organique. Mais le règlement intérieur organise et réglemente. ndaxte seen fii ngeen ne tey seen TV am na règlement intérieur écrit ou non écrit mais am na dans la mesure où am na heure bu ngeen di xëy am na heure bu ngeen di wàcc am na pause café am na loo fi war a def ak loo fi war a def mais admettons que mon ami Bougane yokk ci ne bon à l'heure du pause café ku mu neex nga tux yàmba moom mun na koy bind règlement intérieur waaye soo ko tuxee police fekk la fi jàpp la la police va braver le règlement intérieur ñëw jàpp la parce que les la République sont au de Massamba ou de Mademba mais ça ne veut pas dire que le règlement intérieur c'est zéro non non no mais ce qu'il y a une certaine hiérarchisation au niveau même des lois d'ailleurs loi organique loi ordinaire règlement nangam nangam. Oui. décret tout bon c'est donc dire que man li ma gisoon moo di su nekkee les parents des filles voilées là dëgg-dëgg bëggoon nañ une démarche saine non bruyante non obscure mais problème bu mel ni am na. devant, devant les juridictions, parce que les tribunaux sénégalais arbitrent tout. Sauf que maintenant, bien entendu, vous me direz que nous sommes dans un pays où la justice est plus dévaluée que le CFA. et que moo gën a rapide euh, ci kaw euh, justice boobu ngay waxee xam nga ne bi affaire yi amee ñëpp xalaatoon nañu li nga xamante ne moom moo di conseil constitutionnel xëy na euh, bu ñu tukkandikoo ci loolu problème bi mënoon naa bañ yem fii ba ñu bëri jàpp ne fu conseil constitutionnel comme yeneen dëkk yi pour mën a gën a jege askanam ci wàllu yoon. non là on est dans le périmètre de l'affaire Sainte Jeanne d'Arc. oui oui si, un si, autre conseil constitutionnel bi am na lu mu ci taxawee euh, pour ñu régler problème bi. parce que du question mais mhm. mhm. loolu doo yegg nañ ko régler par la voie euh, que je viens d'indiquer. Mhm. aller vers les juridictions mais nag léegi nag yëf yi dafa romb foofu. léegi nag yaa a ce volet là mais y a un deuxième volet parce que quand vous gouvernez vous devez vous préparer en conséquence et vous devez disposer d'un certain nombre de leviers parce que nañ waxante dëgg euh, une gouvernance ne doit pas être une gouvernance d'amateur parce que ñun Senghor fekk nañu fi Abdou fekk ñu fi Collin fekk ñu fi Ablaye Wade fekk ñu fi donc on a des éléments de comparaison on peut faire l'inventaire des gouvernances qui se sont succédé au Sénégal te ñu waxante que dafa am xam ne itam waroo def yëfi amateur parce que quand il comme ça y la gestion à ciel ouvert ministère bi o au euh, euh, les protagonistes ñuy waxtaan y a aussi la gestion souterraine parce que état noonu lay doxe parce qu'en définitive l'ordre public doit être sauvegardé en définitive la paix civile et la paix tout court doivent être sauvegardées alors yooyu nag état bi dafa war a jël matukaayam et y a des leviers qui existent dans ce pays. kon état ci ci ci wàllu wi kon jëlu ay responsabilités ni ko ñenn ñi xalaatee. en tout cas a des retards qui fekk yeneen crise yoo xam ne bugguma leen a convoqué fii parce que peut-être c'est des crises qui relèvent d'autres domaines plus sensibles plus confidentiels et plus névralgiques mais am na yoo xam ne ñoom Jean Collin ak ñoom Abdou Diouf réglé nañ ko fii. Mm-hmm. mais utiliser nañ yeneen leviers yoo Mm-hmm. Par exemple, dans ce cas précis, vous avez le cardinal mm-hmm. que le président de la République peut actionner par un émissaire de façon souterraine. Mm-hmm. Certes, le cardinal, lui aussi, attention, il y a des limites. Parce que là aussi, il faut connaître l'organigramme de l'Église. Parce que cette école-là est gérée par une, euh, une congrégation qu'on appelle la congrégation du Saint-Esprit. Je crois savoir, les, spiritains. Or, dans l'Église, vous avez plusieurs congrégations. Mmh. vous avez d'autres qui font la charité, autres, autres, autres. Bon, te chaque congrégation est autonome, son budget, sa, son administration, nangam, nangam. Bon, cardinal, lui, peut ne pas les bousculer, mais quand même, il a une autorité morale sur, sur tout le monde, parce que le cardinal fait partie de la curie romaine. Mm. Il est électeur de pape. Il est créé par le pape. Donc le cardinal, c'est pas n'importe qui. C'est un levier que l'État pouvait actionner de façon souterraine. Deuxième levier, le nonce apostolique, l'ambassadeur du pape mm-hmm. qui est à Dakar, mm-hmm. Mm-hmm. l'ambassadeur du Vatican, le ministre des Affaires étrangères, mon nom actionné. Te man duma yek, journaux du yek, ken du yek. Troisième levier, Abdelmonem Elzen, c'est le chef de la communauté chiite au Sénégal. Il est vieux, il est âgé, mais pour le la communauté libanaise dafa fracturée vous avez les maronites vous avez les druzes vous avez les sunnites vous avez les chiites et cetera alors kii nag c'est le chef spirituel moral et tout ce que vous de la Abdelmonem El mais am na autorité am na moom itam nu mu mënoon a waxtaan ak ñële solution parce que bëggumaay convoqué yenn yoo xam ne ça relève d'autres secrets mais am na situation yu fi amoon moom réglé ko noonu ak ñoom Jean Collin mais reconnaissance affaire bi tam y a une certaine capacité une expertise problème média yi jàpp nga ne donc euh, problème ni ñu ko médiatiser moom moo ëpp ba confusion bi daal di parce que ñu bëri dañoo jàpp ne lii. problème non la médiatisation ne me gêne pas outre mesure parce qu'on est dans une démocratie. Mm-hmm. la démocratie est bruyante. c'est la mm-hmm. dictature qui est silencieuse. donc man ça ne me gêne pas moi suis démocrate. Mm-hmm. mais le problème c'est que l'État mun nay gérer yoon yoo xam bon débordement yi sax mun na am duñ fi yegg si parce que y a des problèmes qu'il faut régler en amont avant nga dem devant le ministère le ministre euh, ou devant les protagonistes. mais tey jàppoo ne aujourd'hui ak problème bi ni mu demee tey nguur gi war naa jël ay matuwaay ba li nu mel bañ a amati. am nga li ma la bëgg a yëgal sax affaire bi dafa baax parce que mhm. tubaab nee na à quelque chose malheur est bon. Mhm. parce que lii dafa révélé yu bëri. pendant boobu am na lu mu ci junj léegi y a une toile de fond dans euh, mhm. que man dafa am yu ma bëgg a jaaxal ce pays conduit à l'indépendance par des autorités politiques essentiellement musulmanes, à l'exception de Senghor, une exception qui confirme et même améliore la règle. Mais danaa ñëw ci Senghor Mamadou Dia Lamine Guèye Abdou Diouf Ablaye Wade Macky Sall ñëpp c'est des musulmans. Les musulmans on nous dit qu'ils sont dominants à nangam pour cent voilà mais il y a un paradoxe il faut faire de l'autocritique fu nekkoon di yoxo yoxo yoxo bi mënuñoo fabriquer une la crème des écoles. jusqu'à ce que la minorité crée la crème des écoles et qu'on aille là-bas bousculer ñun pourquoi on n'a pas créé la la crème des écoles muy muy muy muy première question bu doy waar. man bi léegi dafa dafa suma bopp. alors paradoxe boobu ngay wax est-ce que kon mënuñu njort ni am na ci loolu mën naa la mënuñu ci ni am na ñu nekkoon derrière. mën naa la tontu ci loolu nga ñëw moom. quand on était jeune dans les années nous sommes allés à l'école à la même période. mais à l'époque dem école privée c'était honteux mm-hmm. c'était le symbole de l'échec mm, les écoles privées étaient presque désertes parce que da nga bëggoon a entrer accéder à l'entrée en sixième rapidement nga jàll DFM di dem di dem di dem tu caracoles tu avances à cent à l'heure Mais l'école publique est en détresse. Pourquoi l'école publique est en détresse alors qu'on nous parle de 40% du budget consacré à l'éducation nationale D'accord, bala ngay dal ci cour Sainte-Marie ak cour Sainte Janine cour Sainte Odette mhm. d'abord da nga war a autocritique loolu am d'accord waaw Justin dafa am question boo posé soulevé tout à l'heure mhm. ma bëgg ci tontu rek peut-être sax loolu du du du këru débat je vous en prie waaye xam nga lu tax église bi école ñu koy réussir parce que église bi dans son histoire moo juddul école ndax tey soo xoolee toute l'histoire de l'église et c'est et c'est vrai aussi pour les musulmans toute l'histoire de l'église pendant toute la période médiévale muy l'école épiscopale a été créée par l'église école dafa nekk loo xam ne ci identité église la bokk. je suis d'accord. deuxièmement au cours de l'histoire d'ailleurs boo xoolee sax toute la lutte pendant la période de la laïcité c'était pour un peu pour dindi école des mains de l'église la woon voilà léegi ñoom ñoo créé école benn ñaareel ba dañu am démarche boo xam ne nii xaj na démarche boobu dafa lié ak li nga doon wax léegi mooy système monarch monarch monacal moom règle les les règles du monachisme moo tax école ñoom ñu mën ko réussir ñun nag waral nañ ko mën a réussir parce que itam dans l'histoire du monde musulman gis nañu ni école tamit nekkoon na loo xam ne nii amoon na solo lool ci mosquée yi ak boobu léegi nag problème bi mooy man sama àdduna yëpp entre les années quatre-vingt ba année quatre-vingt-dix yi sama liggéey li ci ëpp dama ko consacré li ñuy tuddee féminisme in islam man dama doon xeex pour jigéenu jullit am droit dama doon xeex pour itam identité africaine man musuma nangu voile toujours damay jël voile ñu indil ma soratu hijab ma jàpp soratu hijab daan ko jàpp di ko décortiquer di ko xool ba dissocier hijab yii ñuy muuru ak li ñuy tuddee véritablement li nekk ci biir Coran li ci ëpp tradition arabe la li ci ëpp ay tradition arabe la damay wax ni ñun suñu solu am lu ko gën a yiw ci àddina mën nañu solu ba yiw te man sama principe jàpp xale di ko muur xale bu ndaw boo xam ne ni xaj na du coobareem nekkul aussi tradition Sénégal ñun suñu tradition moo daan bu xale di jàngi école xale bu jigéen da nga koy mëgg solal ko robb li ketam bu rafet ak ay dàllu mocassin mu dem jàngi xale bi nag bés bu màggee ba atteindre majorité bu ko neexee voilé wu bu ko neexee sol musóor bu ko neexee kolu lu ko neex mu def waaye xale affaire voile bi dafa dépasser simplement affaire xale yi jàng tey nag je remercie je remercie vraiment Dieu parce que tout est bien qui fini bien waaye nag bu ñu fi jógee ñun jigéen ñi war nañu jëlaat débat bi sur le voile parce que nekkul loo xam ne nii dafa méngoo ñun ak sunu cosaan ak sunu aada même su dee ay jullit lañu sunu col col gu yiw la pour jullit waaw ah. tradition est-ce que école warul nekk lieu boo xamante ne képp ku fa dugg élève nga tout court foo xamante ne duñu dissocier sa tradition sa xeet sa religion et cetera absolument ñun bi ñu demee école mooy former citoyen waaye bu fekkente ni da ngay ñëw si école du ma toog ak góor du ma joxe loxo man lan moo tax ma duggoon duggoon ci féminisme dans l'islam doon ko tra parce que boobu temps jamono yooyu dafa xewoon samay propre rak bu jigéen ñëwee ma indi sama ay xarit yu jigéen bu ñu leen tàllalee loxo di leen nuyu ñu bañ bañ ko nuyu loolu man man moo ma dugal ci ci affaire ma toog nag di ko gëstu mën naa fi nekk xale xale bu ndaw xale bu tuuti sama yaay yónni ma ci benn kër sëriñ ma yóbbu añ ma yóbbu añ bi ñëw fekk benn góor toog boobu temps maa ngi préparé entrée en ma tàllal loxo bi sama loxo góor gi pour mu nuyu ma góor gi def nii ñu ne ma góor gi du nuyu jigéen rek ma sànni bool bi rek daw vois c'est-à-dire affaire yooyu moo tax lu ci bëri kenn du ko nangu ci milieu école yi waaw. diggante Sainte Jeanne ak euh, état bu Sénégal nangu nañ leen muuru bi maa la koy wax sànq kon tamit dafa mel ni euh, voile yooyu aussi am na lu ñu leen di reproché ci seen comportement parce que wax nañu ni dinañ fa dugaat mais seen i parent dinañ taxaw ñu am lu ñu dugal seen nopp ñu dégg ko. waaw et puis nag boo ko seetloo ba mu yàgg aussi xam nga tradition li ma lay wax rek tradition arabe la. boo xoolee nag li ci ëpp nag ci affaire voile bi xëy na am na ay sénégalaises mais bariwuñu parce que ñun lool du suñu tradition te man tamit gis naa ni gis nga li Senghor daan wax rek boo demee ci dëkk boo xam ne ñëpp dañuy fekkee benn tànk da ngay fekkee benn tànk su fekkee ni ne ñu ñëw gis ne comportement yi nii la te dem nañu ñoom parent yi ba gis ne loolu mi ngi bëgg a indi fitna ci biir réew mi ñoom ci seen bopp ñu reculer kenn waru leen wax bu leen ñu reculer pourquoi du ñu xale yi mën nañu sol béere mën nañu sol bonnet mën nañ sol leneen lu tax kut ko kut ñu voilé wu c'est-à-dire aujourd'hui nañ waxante dëgg débat idéologique les questions de géopolitique mm-hmm. les problèmes de lutte souterraine loolu moo tax benn question kenn mënu ko régler aujourd'hui dans le monde te loolu nag du intérêt Sénégal du intérêt jigéen ñi te du intérêt xale yi te du intérêt école bi itam. mun naa ci yokk benn professeur mi ngi wax euh, débat idéologique euh, lutte souterraine alors justement am na ñu doon dégg sax ñuy wax ni am na ñeneen ñu nekk ci mbir mi ñu nekk ci ginnaaw mbir mi est-ce que euh, gisoo ni loolu daf ko xaw a laal tuuti. waaw d'abord je rebondis sur deux le premier point maanaam effectivement am na lu mu wax lu am solo l'Église a historiquement pris en charge l'enseignement presque avant tout le monde sax loolu moo jur concordat bi. mais aussi itam les français dañ fippu et ils ont brisé l'hégémonie de l'église sur l'école parce que soo gisee les lois de Gambetta et de Jules Ferry si vous avez étudié l'histoire de France Jules Ferry Gambetta ñoom ce sont les pères de l'instruction publique te ñun nous sommes héritiers de cette instruction publique ñun ñun les Sénégalais euh, euh, ex-colonisés devenus indépendants moo tax ma ne tout en embrayant sur Jules Ferry et sur Gambetta mun nañoo créer des écoles performantes. mais l'une des premières écoles au Sénégal c'est l'école des frères prophètes de ah. loolu laa wax. voilà mais après nous avons bénéficié aussi de la Révolution française maanaam l'école de Gambetta et de Jules Ferry bon deuxième point bi ci am solo moo di euh, man li ma gëm moo di crise bi dafa wane yu bëri. Sénégalais yi sooy seet ni ñu doxalee ci crise bi wane na ne daal ñoom laïcité doyatu leen. te quand il y a des situations comme ça un abcès il faut utiliser ce qu'il faut pour def une opération chirurgicale nga nga xotti ko les sénégalais forment un peuple souverain ñoo voté constitution de 1960 jusqu'à nos jours débarqué démb 2016 la réforme euh, de de Macky Sall qui est passée par voie référendaire muy 2016 su nekkee ni laïcité bi neexatul sénégalais yi. man je ne suis pas contre ah man république islamique ak république non islamique yëpp laa yemale parce que pour moi le peuple est souverain je suis démocrate su nekkee ni peuple bi dafa bëgg jël laïcité bi balayee ko teg ko fale mais am na opportunité waxtu fi référendum amatee bala ñuy voté dañuy wax ki teg référendum bi ak ki teg questionnaire yi ne ko fekk dindi woo laïcité bi duñ ko def mais nag yow su la Senghor joxee référendum nga voté ko te pourtant su la joxee constitution nga voté ko or dans la constitution de on célèbre on consacre la laïcité Ablaye Wade jox la constitution 2001 la laïcité est mentionnée nga voté ko Macky Sall indil la référendum 2016 la laïcité est maintenue nga voté ko. bët set ngay xultu d'une façon islamiste mais je dis mais le peuple n'a prendre ses responsabilités. mais justement moo tax ñu constitution. ah moo taxoon ñuy ni est-ce que règlement mën na sous constitution. non non non notre constitution consacre la laïcité. tout à fait mais tout à l'heure le problème là mais damay gëstu li li Penda gëstu ba pare maanaam a gis na ne léegi réew mi neexatul parce que lépp xëccoo la lépp tiraillement la lépp tension la. te soo ko gasee ba ci biir. soo déggee ñu ni ñuy xultoo le socle de leur révolte et de leur colère porte sur la la la nature de l'État.